li muy def est sant nañ ko ko. kenn sant ko ko de. ah mbay ma mbay bu yegg de foofu rek. yaa ngi rubrique lu am solo. sàcc bi sàcc bi dañuy bëxër ñett génn ci kër gi moo gën a ngéwalee kaay leen ñu ngéwalee. Hmm. ba pare bëgg lekk bëgg lekk ba nga ni maar dee taal. Hmm. sàcc bi génn seen kër di dox ñaadam ñaadam koket koket ñaadam ñaadam ñëw ba ci kër gi ni ñolong ni cirib xaaju guddi trois heures du matin mu ni cirib ci biir kër gi di wër lu mu sàcc. bi muy wër di ubbi néeg ak néeg saal ak saal waañ ak waañ di ubbi gisul dara ba ni bëxër ñett ci benn néeg fekk fa ponkal moo xam ne na mu tol maa day taali boo jëloon yëkki ni roof Balla Gaye roof Modou Lo roof waajee leen ëpp waajaa ngi tëdd di nelaw benn boolu ceeb nekk ci wet gi xonk coy bëggëj ba ndaysaan waa ji xiif nag xiif goo xam ne li mu dox ci guddi gi yépp amul lu mu sàcc waaye pour wan la ni sàcc la boo xam ne dafa ngéwale ba pare bëgg ceeb sàcc bi bi mu gisee boolu ceeb bi da koo xëcc ba mu ñëw ndaysaan xiif a ko sonal boobu amul lu mu sàcc mu yam ci bool bi mu ne xaaral ma ceebu rek ubbi bool bi xëcc raxasu mi raxasu di dóor ci ceeb bi mhm. ñu ne déeta waay muy ceeb di dànk di dóor xëcc bëggëj bi jën yi ñam bi jeeg suppame ji di ko boole di dóor mais ma ngay lekk ceeb bi moomoo neex na neex goo xam ni sa waay mi ngi ko yëg mhm. di lekk ba xooñ di des ci mu dóor mais dafa mujjee saalit dafa lekk xam ni li muy lekk nii dafa neex. Mm. mu fàtte ni moom mu ci sàcc. naan lan dafa jëkk ba ci yàgg waa ji ni mu punkale noonu moom la doot tël sa waaye ni bëreet mu ne ko ku ceeb lii <laughs> ndax neex. waaye fa lañ ko dóor moom. dootul saaj dinañ ko wax ki ko ceeb de. doo ceeb <laughs> xanaa xam na ceeb yoo xam ni. Hmm? da saalit loo da lay loo. ah da lay fàtteloo sa caabi. fàtteloo sa sacoche. ah da la koy def. <laughs> dara du ceeb may sax. d'accord dama saalit fàtte fa lu ne. <laughs> ayca donc dañuy waaj a dem pub. et puis ah. euh, avant ñuy dem pub ñu fàttali leen que bu ñu jógee page de pub dinañ jël téléphone bi. 88 hmm. euh, ngeen def 628 89.